bu yàggul euh, le président Mamadou Thiam am na émission mu ngi ci doon wax. Mhm. te ñun loolu dañ cee waxtaan lu baree bari xam nga toujours il faut que ñu distinguer marchand ambulant tablier. Mhm. marchand ambulant tooñul kenn. parce que moom day dox yoonam di dem. mën naa topp autoroute bi di dox. <laughs> ba egg Thiès di jaay jaay il n'est pas encombrant mhm. mais le problème c'est les tabliers. état yu bëree bari dañuy toog di bàyyi ñu leen bàyyi ñu installé wu. damay dégg euh, benn mag muy wax naan bu fi lal moo gën a yomb jóge fi. Mm-hmm. dañ leen di bàyyi ñu toog. confortablement ba nekk ba nekk à l'aise ñu bëgg xëy xëy xëy nag jëlee leen fi dafay poser problème. Mm-hmm. donc pour résoudre cette cette cette cette problématique li ci li nga xam ne moom moo gën a yomb d'abord. te gis naa ko ci biir programme bi nga xam ne moom mooy autorités yu bees yi mooy fexe ba wutal leen ay espace mm-hmm. yoo xam ne mën nañ faa dem parce que boo leen fa jëlee aussi te yóbbuwoo leen feneen ñu installé wu confortablement problème dina am parce que ñoom tamit dañuy fippu donc il faudrait à partir de ce ñu commencé am réflexe di gérer nos espaces publics. Mm-hmm. balaa gars yi di fay. c'est ça mm-hmm. donc je pense que la création de de d'espace marchand la création de marché moderne la création de mini marché dafa nekk tey un impératif. Mm-hmm. parce que quand même nag il faut le dire lii xew Sénégal moom phénomène la boo xam ne munta a continuer.